nous avons élu ce gouvernement et nous allons les protéger ku ci nekk lay patriotes tey yii da nga war a jóg dëkk boo mënta nekk di leen ko wax encore képp ku ñu nommé ministre DG ak responsabilité boo mun mënta gàddu ci gouvernement bi ngay gérer di xeex di jub di jubal di jëbal di dinañ la protéger dinañ la ànd ak accompagner la dinañ leen aar ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ba nga xam ne tey yéen ñii di jiite jiital leen da ngeen liggéey ak xel mu dal. parce que amul xelam dal tamit doo mën a liggéey doo mën a def la ngay def ba réussir te xam na ne sa guvernement dafa am un plan dafa am benn canevas bu muy suivre léegi nag ñoom lu ñu bëgg mooy détourner kanawaa boobu fexe ba indi yeneen yoo xam ne duñ ko suuraale bu ko defee ñu yàq programme gouvernement bi da ngeen nax seen bopp dem leen ngeen di jënt ñu ngeen di fayee alal di ngeen sàcc indi ko def ñu jox ko ci delloo ko ci askan wi mooy wax ci mais bi ngeen yaakaar alal ji ngeen sàcc danañ danañ koy bàyyee yéen ngeen dem di ko jëlee di ko politiquer di ko opposé woo di ko xeexee nguur gi nekk fi nax ngeen seen bopp ay nguur gi dina jël ay matuwaayam ma sëkk dafa yàkkamtiwu dara nag ñi ñu fol ñii dañoo yàkkamtiwu dara lépp dañ ko dañoo am une bonne organisation lu ñuy wax priorisation des tâches dañuy prioriser li ñuy def ndànk par ndànk yàkkamtiwuñ xam fu ñu rappul li ñu war a def danañ ko def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jarul yàkkamti fi ñu war a dem danañ fa dem li ñu war a def danañ ko def benn par benn et justice sera sera faite ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci événement yi fi amoon jarul yàkkam lépp dana ñëw ñu sàcc alal Covid 19 ak collectivités locale yi mooy mairie yeeg ñëpp détournement yi fa am détournement yi am ci affaire problème foncier beeg domanial beeg bépp problème bu am gestion des forage ak benn par benn def gis nga ministère bu ne direction ba na la nga ko war a gérer da nga ko gérer audit bañ ca war def da ko ca def te justice tamit la mu def dina ko def. ñi dañoo am seen programme très bien organisé te dañ koy doxal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kenn mënu leen tere doxal lii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te say wa ngeen gëm yàlla dinañ doxal suñu ziar lu bare bare di nuyu waa diaspora yépp leen ziar di leen wax nag gis ngeen combat bii nga xam ne mooy le projet Pastef fi mu jaar ba egsi fi mu egsi niñ ci xeex bu mu egsi fi mu egsi bi ngeen fàttalikoo ay jamono ñi ci dee ñi ci ñàkk seen liggéey ñi ci ñàkk seen alal ñi ci ñàkk seen ay xel parce que am nañu sax ñu ci feebar feebar xel ak yeneen ak yeneen projet bi fu mu jaar ba egsi fii mu egsi ba sénégalais yi ne gonga ñii ñoo ñu doy ku ñu teg baax na dañ leen di fol ba ñëw fol leen ba egsi fi ñu egsi ngeen yaakaar yaay projet bi yéen seen caaxaan dina tax ñu bàyyi leen di leen ngeen semer le ba yàqal nit ñi du ngeen ah, ah, ñoo koy bañ. loolu même gouvernement bi ñu teg bi sax laa la wax bu ñu xawoon yorom tuuti sénégalais yi leen fol ñooy lànk ni ñii dañ leen dañ leen a fol. on va les protéger ba kenn du leen mën a dara yéen nag vous êtes minorité gis nga minorité bi ngeen yaakaar ne ah, ah parce que am ngeen ay milliards yu jeex milliards yi ngeen sàcc alalu réew mi ngeen jël def ko seen gafata yi yor seen ay oto yor seen ay nit parce que vous avez placé vos hommes partout ah, ah yéen ci boppam war ngeen a mën a jël réew mi mettre ko en place di def la neex ngeen yaakaar danañ ci seetaan dina leer dinaa leen réew mi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lii mbiru yàlla la. yàlla moo teg ci réew mi ñii pour defar réew muy Sénégal Sénégal day am jàmm ak salaam par force incha allah rabbi Sénégal day dox day neex day ala daw mi laa la wax ci jàmm ak salaam parce que ñu ko yor ay nitu jàmm lañ ay nit ñoo xam ne jub jubal jubbanti te dinañ jub dinañ jubal dinañ jubbanti far force te kenn mënu ci dara incha allah rabbi ni ngeen bëggee réew mi nag Sénégal gii na meloon mel ko dootuñ ko nangu réewam euh, ñaari boor. ñii ko ànd ak nguur gi ci lu la neex ñii ko ànd nguur gi ñu def la jàppale dóor ak def la ko loolu dafay jeex Sénégal ci bopp mooy. Euh, di wax rek ci loo xam ne aussi concernant la sécurité euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi que muy ministre DG ak responsable euh, bu nekk ci coalition bi nga am poste nga ñàkk am poste mais nga am dayoor ci parti bi di waxal ne yéen ñëpp. kenn du leen bàyyi bu ngeen yaakaaree ne que vous êtes épargné da nax seen bopp donc na ngeen gis seen sécurité bu ma sëkk ci naka sécurité du rek jël ay gendarme ay policier ay garde corps ñi lay garde déedéet dafa am sécurité aussi bu garaaw boo xam ne yéen ko jël seen bopp mooy lan il faut être prudent nee nañ prudence est meilleure de sûreté prudence comment prudence mooy lan seen kër yi ñëpp responsable yi ministres yi DG seen kër yi def leen fa ay caméra de surveillance yuy fonctionner 24 heures sur 24 boo xam ne sa kër lay jógee ci mbedd bi di jël alentour boobu yëpp ci ginnaaw foofu yëpp dañ koo jël guddeeg bëccëg am ay làmp ba nga xam ne ku fa dugg wala ku fay dugal dara mën nañ dugg seen kër yi ay yàmbaag yu kenn xamul wala yeneen ak yeneen pour yàqal leen parce que képp ku ñu fekk sa kër yooyu mën nañ la ko taqal jiiñ la ko le temps que enquête bi dem sa sa porte sa sa sa poste mu nga ko perte yeneen ak yeneen gars duñ bàyyi dara ay bandi lañ te ba léegi bàyyeeguñu nee naa leen ñii seen xeetu jeex ñun il ñu soyons il faut que nous soyons vraiment très prudents ñu xam ne aussi ñun ba ngeen dañu xeex combat bi ba am ko mais tey lañ ko gën a mën a xeex bi mooy lan xeex pour protéger ñi nga xam ne ñooy euh, résime bi dañ war a protéger te protection boobu sécurité bi da ci am solo lool. sécurité bi aussi par rapport ak yenn euh, responsable yi que muy ministre que muy député que muy yeneen ak yeneen portable les téléphones portables il faut que ñuy def très attention très attention il faut qu'on soit très vigilant avec appel whatsapp yeeg audio yi ñuy envoyé group yi ñuy dugg téléphone yi ñuy wax yépp il faut ñi nga xam ne tey am na yenn wax wax yoo xam ne kenn wax ci. téléphone na nekk appel whatsapp appel normal yëpp ci yam bu leen wóolu kenn Sénégal dafa yàqu ki ngeen war a wax ak yenn yi ngeen war a liggéey moom ci yenn yi woo leen ko seen bureau wala seen kër mu toog te kuy ñëw na ngeen wut un garde corps bu ñëwee dañu lam poche génne te gis nga réew mi day changé bu njëkk élection nam daan amee dootu ko amatee élection balaa amati Sénégal gi incha allah rabbi li ñu njëkk def mooy élection bu am dañu dañ leen defar ay loi yoo xam ne képp ku bëgg a bokk nga nekk candidat ci yow Sénégal am nga droit bokk y' a pas de problème ñëppay bokk ak parti boo mënta nekk di nga bokk amul benn problème waaye bépp candidat bu déposé sa candidature nga bokk Pastef nga bokk benn boo ko yaakaar nga bokk APR nga bokk euh, xaw ma taxawu Dakar ak foo mënta bokk puis rek foo mënta bokk bis boo déposé sa dossier li ñu njëkk a def mooy def audit bu ñuy xoolee dossier yi ngay déposé pare ay pièces d'identité yeneen ak yeneen bu ñu xoolee pare la ñuy def avant ñu valider sa candidature mooy def audit. maanaam xool yow mi déposé candidature pour nekk député wala pour nekk maire wala pour nekk loo mënta nekk def ci yow lu ñuy wax enquête de moralité pour minimum 15 jours boo xam ne dañ koy envoyé à la gendarmerie wala police ñu def ay enquête ci yow maanaam bépp poste boo mu mos a gérer mu nekk sa CV que mu ñàkk nekk sa CV danañ ko xool maanaam bu dee da ngaa mos a nekk agent administratif même gardien da ngaa mos a gérer forage gérer comité de santé a nekk DG da ngaa mos a nekk a nekk conseil municipal da jaay ca marché wala nga am gérer tontine ñu xool ba xam na ko jaa gérer woon jaar na yoon ba pare bu amee lenn rek loo xam ne reporté nañ ko même bu dee dangaa mos a gérer ab tontin tontine ba luuc laa la wax wala dangaa mos a gérer dara mu am problème loolu ci boppam mën na ça dépend ci gravité gravité la nga gérer woon mën na ci laa la wax am benn image boo xam ne tey mën na mun nañ ca jaare la yow sa candidature boobu ñu invalidé ko ci enquête de moralité bu amee denn lu mu génnee ci lëkk lañ jël ci lan la mës a dénk yow même bu dee da ngaa mos a nekk agent fonctionnaire wala agent administratif wala ngay liggéey ci benn béréb ñu ne ah na nga ko doon liggéey kat jaarul yoon parce que bañ ko dénkee liggéey bi daawul liggéey liggéey bu jaarul wala dara ñu am benn rek euh, sikki sàkk ci lañ doon def ci enquête de moralité bi révélé ko révélé ko yow sa candidature dañ koy invalider loolu mooy tax bu ëllëgee bu ñuy tànnati du n'importe kii mooy nekk.